nuyu naa ñëpp fii laay tàmbali ak yéen ci seen revue de presse teel sa kaasu kafe nga guux bay simbaleexu bala ngay naan mox xew ci réew askanu sunu gaal tey la gis nemmeeku ko te mu amee ca joie l'observateur yi la kaay ne ma kenn daa xamul lu muy niru aw ween laa la wax sen waaw bopp jigéen moom la ñu nemmeeku gis ko ci ab soo wenn ween la yëgle kaay gi xam la de moom la ñu nemmeeku gis ko ci ab soo ñu daal di ko abandonné ci ab terrain vague ca joie moom bi mi yéeme na ma ne ko doy waar moom koy ëpp na tool jéggi na ko moo ween wi ween a kanax moo ana lan moo a def ween ci soo bi lee lu ci am ba des daal doy na waar leneen la doy waar biis ba nga xamante ne moom la ñu taaloon ca yaraax cey boo demoon ca Medina keroog ba nga xamante ni jàpp nañ ña nga xamante ne ñoom ñoo def jëf ji mel ñu ngoy leen waaw ñu taaloon bis ba ba ñaari yu jigéen ya faatu jigéen yi nga xamante ne mooy yaayu ñaari xale yu jigéen ya naka la jàpp nañ leen rek mu simba ay rangoñam di jooy laa la wax waaye waaye xel maa dem ca doom ya l'observateur yëgle kaay ma may ma ñëw may ma ñëw bala ngaa dem ma wax la itam arbitre bi nga xamante ne ci ab test la faatoo maa nga ca football ba de arbitre bi ci jëmmi bopp boppam ab test physique ci la faatoo de mu nekk lu yéeme te doy waar Vox Populi yëglekaay ni ma nañ dem ca gone ya ba ndëgg ni laa wax bawunu ña ngaa dëkk géej ga gaali loo cay laa la wax de mbeex mi ci jëmi boppam gone yaa ngi koy dëkk xoola ci ñetti fan képp rekk dong ñu intercepté ci lu tolloog migrants juróom benn téeméeri doomu aadama lan ci mooy ni leen du ngeen yegg de dem du fi amee libération yëglekaay ni ma ma ñëw wax ca Barça wala Barsaq jilekaay jar naa àddu lu tolloog 605 candidats ci ñu daal la goo xamante ni ca Nioro la bawoo am na yeneen ñaari embarcation yoo xamante ni ci askanu sunu gaal la ñu jógee àgg nañu ca Espagne man de Sénégal gii yëgle kaay gi nee ma kaay ma wax la nag ci wàllum Barça ak Barsax gi lee moom Sénégal moo ci jël deux ci Afrique ginnaaw Maroc waa Espagne ko xamle moo moo moo la nga xamante ni moom la ñu téye ca dëkk ba na kenn xamul nu mu toll yegg na yegg gi ngay seen yëpp duñ ba kenn mu jàll coono ak mettit ba nga xamante ni moom lañ fa nekkee metti na lool ba jéggi dayo ñu ci bari si ñoom kon sunu gaal libération ni ma coow yi fi amoon ci weeru juin ba nu jàppoon ci ay nit laa bokkoon na ca six élèves ci six élèves yi amoon na juróomi mineur yëglekaay gi ne libéré nanu leen fa sigéen soor élève kay fi toll nii tembe ana lan la war a tal moo xanaa a ah, ah, jàngi école ubbi na waajinu ndongo yi waaru yii mu jaaxle lool bés bi la suur yëglekaay ni ma kaay moo xam la nan laa tudde li nu mel ardoise salé ndax da seetli rek waajur yi jaaxle nañ de bu nu waree yëngatu ci wàllum fourniture wëngatu ci wàllum frais ndax gone yu ci bari fan yi ay wataa leen yóbbu ñii ay moto yëgle kaay gi ni ma ak abima yére waay waaye ku ne xam na ni gone yi bu nu ubbee ku ne day jaay sa morom sañse seetetetet ay waay waajur du moroom xoolal ma baykat bi le li mu wax moom day nee dafa jël aw mbayam la mu war a am ci ay toolam yëpp tay la ko ngir mën a wutal doomam yi ay jumtukaay yu nu jànge bés bi la jour yëgle ni ma moo yaaykat xanaa xamul fi mu toll ni tombe compte yi ci jëmi boppam ak poos yi jeex tàkk la def ana lan moo ko vidé yëgle kaay gi ni ma cérémonie religieux yi xew yi ngénte événement yi nitulleeg màlle riir mi mini mbàccum gerte ci Sénégal moo nooy dajale bu dajale woon tey jii ñi nga xamante ñoo noppi ngir nekk candidat nekk président de la république ci rimas kon sunu gaal dugal leen ci ab salle duñ fa xaj de ndax bari gi nga xamante moom la bari 126 ku ne jóg ni da ngaa a doon candidat ci rimas kon sunu gaal gi lee moom kay fi toll nii tembe fiche yaa ngay jàmba jànge ci réew mi fiche ya tas na laa wax raj-raj loo ak dras dras ji bëri waaw ñu bare bare bëri laa la wax ci ñi nga xamante ñoo nar a dem fii lañ leen di téye laa wax ndax parrainage day natt man nga bokk wala mënoo bokk am nga nit wala amaw nit waaye waaye segg la rek lu bari ci ñoom dinañu taxaw bés ba le jour yëgle kay ma na ca làmb ja yëkkati lu tolloog cinq cent millions francs CFA jàppale leen ko Le Soleil yëgle kay ni ma ci cent vingt six yi nga doon tudd léegi est xam nga ne soixante sept jigéen na nga ci xer bu tey sàkkat de da cay daru ma nga naan Pastef gi ab projet la te bu ñuy wax projet romb nañ jëmmi doomi aadama du mbirum kenn mbirum ñépp la plusieurs candidats à la pour bañ a wax ni plan B la Maimouna Bousso naa Sonko doon président ak mu ñàkk a doon ak ni Pastef di doxee waaye du benn enquête ni ma Anta Babacar Ngom ngay wone boppam ca Mbour ma naan nous devons dire non à la politicienne moom day ne lu ni mel dafee war a jógee fils de parrainage yi nga xamante nag daa war a démissionné li nga xamante moo di poste premier ministre Les Échos yëgle kaay ni ko kaay yow de daa mel ni bokkoo gis-gis ak nga xam ne moo di njiitum réew président Macky Sall moom président Macky Sall ci jëmi boppam ma nga jël Amadou Ba laa wax yégal ko ca kaw tee daal di ay député te naan leen yéen ñëpp na ngeen pare Ba Dakar Presse yëgle kaay naa ma ci jamono jooju yégal na gratu Ousmane Noël Dieng laa wax daal 3 kay di diggante Khalifa Sall ak Barthélemy Dias waaye waaye conflit d'agenda la yëgle kaay gi ni ma moom kay désormais ñaari kuye fa ne laa wax te ñaari kuy nag mën noo bokk gàmb ci jooju la jamono waa parti awale itam daw nañu dëkk terrain bi di tas seeni fiis laa wax ngir jàppale seen leader moom kay ku ne fu ne fa nga ne yaa ngi faa wone sa bopp surtout ak yëgle kaay indil ñu nataalu ba Amar Thioune moom it ci candidat yi la bokk a ngi ni faa laa wax génn samp seenum ndënd fi mu toll nii tembekan yi jàmmaar moo di Amadou Ba moom la xeexal ba noppi soo ko jàmmaarloog ñeneen ñi de léefu yëgle kaay indil ñu nataalu Bougane Gueye moom ma ngay xamle défi opposition bi ak enjeu yi nga xamante moom la nar a teg moom Bougane Gueye ngir daa ji gàñe réew mi l'indépendant yëgle kaay ni ma ci collectif parrainage yi xam nga waa PDS lu ñu defat dañoo installé seen état major ku ne yëglekaay ba tey ca candidat ya indil na ma ki nga xam ne moo di Serigne Mboup ma man candidat laa ndax xam naa parcours l'essentiel du jour yëglekaay ne ma waa Pastef day cinq plan la teg ci table ji deux minutes pour lire l'essentiel yëglekaay benn Maxtaar Diop gi ne ma bennoo doo au mur menacé ña koy menacé mooy ña génn pression judiciaire contre les Sonko boys mi mu turé ni Amadou Ba na démissionné nañu wax ci wàllum wéq jiital gi ña nga xamante qualifié demi-finale yëglekaay gi ni ma ndax xam nga ne Ukraine la ñu fas yéene taxseel demi-finale Iliman Ndiaye moom ci jëmi boppam ma ngay wane jaloore Mori Diaw wane ni ci dëgg dëgg tas sa baaraam mu a la te góol bu mag la nanu wax ci wàllum jàggiruur gi Ada Fass sal ba yëkkati na ay kàddu wax ci combat bi ma nga ne Ada Fass amul droit def erreur te kat jos mbër la moo xamante mbër mu doy waar la sëy laatir bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak a jërë ngeen jëf jaa ngeen jëf mbokk yee xarit yeeg dëkkandoo yi kontaan nañ leen bu baax a baax kenn ku ci nekk ci yéen jox leen seen wàccuwaay di leen wax ni doole jën ndox la waaye ñun nag sunu doole yéen ñi ñuy la moo tax na kontaan nañ leen bu baax baax baax di leen wax ni ñu ngi leen di jaajëfal di kon di leen kontaane di leen wax ni tem kafe gi des ci simbileexu ku ci nekk ci yéen da ngeen di naana naana naana naana naana naan naan ba simbileexu waaw waaw mooy yow bañ a naan ba simbileexu waaw Cheikh Aliou seen sama xarit maa ngi koy liggéey bu baax a baax moom soxna say bata démb ca dëkk ba laa ñëw ndeysaan ah ca te te ñu nekk ñu baax ñoom ñëpp wax dëgg euh, di nuyu bu baax a baax a baax Mamadou Ñaan ma nga xamante ne moo may occasion bi moom man faa dem maa ngi bu baax a baax moom ak Khoureychi Thiam ñoom ah ñoom ñëpp rek sama gars yi yëpp rek. waaw ñoom al amin ñoom ñëpp nuyu naa leen bëgg leen jox leen seen wàccuwaay waaw ma leen di invité nag ci ci ci ci ci gàmmu gi gàmmu gi ginnaaw suba la suba la mar mardi ginnaawaat suba waaw ginnaaw suba la kay alarba ak jàmm ak salaam gàmmu pirum ndëri gi ah sëriñ Abdou Salam Sarr de nee na ma man damaa bëgg a ñëw simb leexu si foofu <laughs> ah waaw waaye nag li muy am ci rendez-vous moo bari de su sant la war a recevoir laa la wax ci mercredi bi. di leen faj ci tegtal ak jàmm kii sama waa mooy jàmbaar ma nuyu képp ku may tewlu ah waa waa Maguette Cissé madame Touré ardo ñoom ah ñoom ñëpp nuyu naa leen jox leen seen wàccuwaay waaw gis ngeen li nu waa yéen ween bii nag lu ko war a def fii nag ci suuf bii nag sànni ko ci terrain bii nag ah weenu jigéen awaay ah, waay waay waay kii ñime na lu bon de te te te te te ak def lii ah yàlla ko yàlla nit waay aw ah, weeni jigéen ween nga di ko kuppet def ci ab suuf sànni ah waaye lii des lii jarta woote réew ana ah, bàjjan xuja wëral leen ma ko Babacar seetal ma bàjjan xuja ñu waxtaane lii ah jar naa woote réunion de moom ah mu jar na ko jar na lu ko raw ah jar na lu ko raw jar na ko tet tet tet tet tet xam nga lu moom ma yéen réew mi ñun duñu xoolaat suñu bopp xoolaat suñu jikko yi xoolaat naka la ñuy doxalee suñu réew mii kafekat kat jàmm koy naan lii kafe gi am na waaw waaw jurta laajte am na 78 ngay def 453 48 86 boo nekkee Pire boo nekkee Kaolack foo mën a ne ci biir réew biti réew sa kaasu kafe yi fekk la fa nga simb leexu sase la 1000 francs ak 2000 maa ko lim maa maa ko diggee maa ne ku ku ku commenté ma tudd saw tur Déthié Lo maa ngi lay nuyu maa ngi bégg Cheikh Oumar Diop sama xarit la Mohamed Lo sama yaay Assou Dramé kebaa Dia maa ngi koy nuyu Abdou Kane maa ngi koy bëggee Pape Diop maa ngi koy bëggee Serge Dion sama xarit la dama ko gëj a gis moom ñëw na sax ma nga ca Tivaouane Peulh nee na ma dammel dama bëgg ci kafe gi waaye yow ku ne Tivaouane Peulh kay war ngaa mën a naan ci café gu ne Thiès nag loolu du dara ah Mia Diouf maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di bëggee daam kunta Fatoumata Bintu Diallo Pulo sama xarit la maa ngi bëgg ci moom ku baax la ci man ab Absa Gueye maa ngi koy bëggee bu baax a baax Abi fay également Jibi Ba di bëggee bu baax a baax a baax Omar jàlloo di bëggee euh, bu baax a baax itam sama xarit Omar Seck ngañ ngañ waa déggal Ngom Teranga ngom teranga sama waay ji ah waay sama waay la ak akam bëri teranga akam mën a joxe teranga maa ngi ko nuyu ah di biggee Maodo kan di biggee Laat Diop di biggee yónni sama xarit la ah nee na ma sama waay ji neex kafe yónni noo def namm naa la ah Mamad Ñas Mamad Ñas maa koy biggee di ko jox wàcc waayam ah di biggee Baye Modou Yadd di biggee Talla Ndiaye di biggee Ngañ Jaxumpa sama xarit Sodo Mbóoj sama xarit la loolu ñépp a ko xam ah femme structure sanitaire Sam Ndiaye ah euh, Aïcha Ndom ñoom Aboubacar Daaba ñoom sama xarit yi ñoom ñëpp daal ku ne ci nekk ci ñoom rek bëgg naa la jox la sa wàcc waaye di nuyu waa pirum ndëri gàmmu ko ñëw na cum di bëggee bu baax a baax waa Gosaas ah waaw samay xarit lanu ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom jëgg sekk ñoom ak ñoom maître Kouyaté ñoom Babacar Thioune ñoom xaadim lum lumiste ñoom ah waaye neel waa Gossas rek Mawlid Cheikh ñoom ñuy naan ca kafe ga ah si Pape si sama xarit la grand entrepreneur waaye neel waa Gossas rek bëgg naa ñëpp daal ku ma tudd saw tur maa nga tuub tey di ñaan nga commenté ndax ma man di tudd saw tur ni ñëpp revue de presse Thiès info boo ko defee rek bi ma mujj a def moo naan fàng ca kaw nga commenté Sénégal jëm kanam waa Thiès info ca kaw ca kanam ci lu baax mbokk yi kon ba subaak jàmm yàlla na ko yàlla def ci askanu sunu gaal may nu semaine bu neex di semaine naataange semaine jàmm ak salaam bañ a tàyyeel te lu liggéey ndaw du tàyyeel ndaw du tàyyeel nanu góorgóorlu góor nanu góorgóorlu liggéey buñ bañee ñee suñ benn moroom jërë ngeen jëf mbokk yi ba subaak jàmm